Forail de Niamana, nous sommes sur la route de Ségou, à la sortie de Bamako. Cette année, les Bernés, ce legs de Serigne Saliou, a traversé une nouvelle fois les frontières à l'occasion du premier safar. Sorna Aïda Diallo, même loin des terres de Serigne Touba, ne s'est pas autorisée à ne pas perpétuer l'action de grâce tel que l'aurait voulu son guide et défunt mari Cheikh Béthio Thioune sur recommandation de Serigne Saliou Mbacké. Des kilomètres pour perpétuer l'œuvre du Cheikh, une tradition qui n'est que la réponse à la volonté de Serigne Touba de rendre grâce à Allah subhanahu wa taala. ku gis lii xam ne mbirum Serigne Touba rek la. Tout cela renvoie à Serigne Touba. Pour ce qui est du nombre, on a entamé les chargements en prenant en compte la durée du voyage pour ne pas fatiguer les bêtes. Nous veillons à ne pas les épuiser jusqu'à destination. lim boo xam ne dana dëppoog camion bi ba nga xam ne du sonal nag yi. Rien qu'aujourd'hui, nous voulions charger 2000 têtes. On ne connaît pas encore le nombre final parce qu'elle indique qu'elle est loin d'avoir terminé. Plus de 2000 têtes font cap sur Touba pour les besoins du Magal. 34 camions ont déjà quitté Niamana. La première vague attendue dans la ville sainte. seen borom borom jannatoo ana bee ki tax yàlla naan xam ma weesuwul xalifa mbalaay biral saalibo borom jannatoo ana bee gaañi seetlu leen iblis weddiwul yàlla adama ka tax sànku woon borom jannatoo ana bee yàlla ay mbiram jël na jokkañi sant yokku moo mooy sang ba Cheikh Béthio borom jàll na toog bi topp laa fi des sant lay li wa topp laa fi des sant lay li wa yaay tayub sëriñ Bamba Saliwa borom jàll na toog bi wayla leen ma kii ay yeesal la